zéro déchet nag yéen a ci jiitu dama bëgg fu ñu taxaw ci zéro déchet ñu gis leen damaa bëgg ñu takk suñu ndigg ñun ñëpp ñu ànd xam ne setal senegal dafa jot dëgg la setal bi yéen rek mënu leen ko du takk sa ndigg rek wër di bale déedéet ñu ngi koy def ndaxte sénégalais yi dañu am pas-pas bi am yëg-yëg bi bëgg ko def mais dañu war a organiser wu ci quartier bu ne fi mu nekk nii li xewagum yëpp du état du Sénégal sénégalais yi ñooy génn am yëg-yëg bi. bëggu koo def ñu leen ci jàppale waaye leneen li nga xam ne moo am mooy concertation nationale yi nga xam ne moom la ñuy jiital balaa ñuy def conseil présidentiel ku ci ne joxe xalaatam président jël ci ay ndogal li war a doon sanction ñu def ko sanction yi dara doon moyen ñu def ko moyen waaye surtout li war a doon organisation à la base li nga xam ne dafa war a doon sensibilisation éducation ñu yar xale yi ba nga xam ne ñun li ñu dal ci suñu génération di dal suñu njaboot ñu def ko donc loolu yëpp maa ngi leen ciy woo ñu ànd ci moo xam taxawaay bi ci mbedd mi waaye taxawaay bi ci xalaat yi ku ci ne fa nga dëkk am nga ci xalaat gis nga ni muy doxe leneen li mooy mbalit mi tey ni muy doxee gis nañ organisation bi gis nañ tamit audite bu fi jaar da ngeen ma sas wax ma dëgg ma ne dinaa leen wax dëgg audite bi génnee na deux cent soixante une personnes yoo xamante ne ñi ngi liggéey liggéeyuñu te ñu ngi leen di fay dama bëgg ñu waxtaan ci boobu ba léegi lu ma wax ngeen tàccu lii dama bëgg tamit ngeen wax ci ndaxte tey déglu leen ma bu baax déglu leen ma bu baax déglu leen ma bu baax Umar Ben soxna wax na ko sànq maa ngi koy sant wax ngeen wareefu état yéen it da ngeen war a wax seen wareef bu fekkee am na sénégalais yoo xam ne ñu ngi xëy suba ak ngoon di tonni ay mbalit di sonn ci naaj bi di bale ñu leen di fay ñu ne fay bi doyul am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fayeeku tëju seen kër di jot seen salaire balaa balaa may laaj état may ma tuuti rek balaa may laaji état mu yokkal ma damay lijjanti xaalis boobu yokkal ko ñuy liggéey te amuñu lu doy jëf jooju nag Jeff jooju nak, du ma ko sas du sas Ousmane Ndaw coordinateur UCG yenn syndicat yi laa toog ñu waxtaanee ko ngeen trouver ci solution bu ko différentiel bobo am muy ñaata par at trois Hein? 60 millions par mois. muy 60 millions par mois déglu leen ma bu baax ñu organiser ko Faire ba ñiy liggéey ñu jot ci salaire weer bu dee salaire weer bu dee salaire weer bu dee ñiy liggéey ñoo ko moom léegi nag mën naa comprendre am na ay retraités yu fi ne yoo xam ne mën na am prise en charge amu ci wala yooyu loolu lu ñu mën a waxtaanee la